asalaamaaleykum euh, maa ngi ziar ñëpp man la Aline Diop yor école football Ousseynou Diop bu Médina siège social bi nekk rue 19 angle 18 marché Tilène maa ngi euh, ñëw tey trent cinq e anniversaire école football Ousseynou Diop école football Ousseynou ñu ko créé 1987 waaw ah, ñu ko créé 1987 ñu ngi ci 2022 donc ren am na 35 ans. journée bi la ko waral euh, dafa am dañu bëgg a fii tout le temps pour wane ne. suñu durée bi ñuy def mën ci évaluer suñu bopp ba pare ñi ñi xam ne ñun ñi ngi ci benn optique boo xam ne ñun dañ ko gëm boobu ba léegi waaw euh, ba pare encore di gërëm euh, ñi ñu jàppale ci journée bi muy waa AFSI muy madame loo moo ñu jàppale ci journée bi euh, ba pare ak madame Diawara it jàpp na ci journée bi parce que moo ñu jox kii bi fii nga xam ne macha allah waaw Euh, mais nag ci gërëm bi aussi dañ koy commencé Boubacar Diallo moom tamit ancien la ci Ecofol bi moom dafa def waru garam parce que nee na dafa fay borom day jéem day jéem a fay bor waaw moo tax mu defal ñu moom tamit teraanga bi waaw voilà man bi may yor Ecofol j'avais vingt ans boobu xëy na peut-être amatu ma woon carrière ci football amatu woon ci handball bi moo doon def ak yooyu yëpp daal léegi nag après moo obligé xool Médina gis ne xale yi am nañ ay talent am nañ ay xale yoo xam ne aussi di indiscipline baa ngi fi. ba pare ñu xam ne am na kii bi euh, nu mu tuddati ginzkat yaa ngi école Médine jamono jooju métti woon na trop ah amoon na ay trop ay trop de kii daal yoo xam ne dañ ko bëggoon régler daal moo tax nag léegi ñu créé école de football bi pour mën a dimbali xale yi ñu mën a euh, yar leen ci diine yar leen ci seen jàng seen éducation à la maison def naa ne du football rek la ñu réussir am nañ ñoo xam ne léegi si ay imam lañu. am na ñoo xam ne ay ministre lañu comme Cheikh Ahmadou Bamba Fall euh, euh, Moussa Traoré mu ngi ci musique bi Fada Freddy mu ngi ci musique bi Gris Bordeaux euh, am nañu Gris Bordeaux am nañu encore Balla Diouf ah am nañ Moustapha Diallo bu nekkoon Guingamp Souleymane Camara ah am nañu Badara kebe moo doon postulé maire sax au niveau de Grand Yoff pro ah ñoom ñëpp fii la ñu jaar ak bu ma limee demee jum actuellement ay Assane Mbodj yi nga xam ne ngi joué jaraaf euh, Siré Pape Siré Dia euh, ba ci Youssou Daaw mi yor jaraaf tey ba ci euh, Pathé Sarr mi koy jàppale ba ci Pathé Sarr mi koy jàppale waaw ba ci Pathé mi koy jàppale yooyu yëpp daal waaw kon nag bari na daal ñi nga xam ne jaar nañ fi dama lim rek mais ak ñoom xeek ñoom ñëpp ñu ngi joué te mu nekkoon kusum ñoom ñëpp bari na daal ñoo xam ne ak ñi réussir yeneen ay Ousmane Kanté ñoom ñëpp daal vraiment bari na daal ñi nga xam ne jaar na fi macha allah ñoo xam ne ay ancien lañ fi daal. sama engagement biir Medina mooy que man xale yi yaru am éducation bu baax mën a dem ci kanam xam seen bopp xam seen valeur xam fii mooy Medina xam valeuru Medina mooy lan xam seen bopp loolu moo tax ñu créé euh, lii daal pour mën a defar Medina daal. sama projet nag mooy li ma bëgg de am académie bu mag. académie bu mag laa bëgg am mooy sama projet li li génération foot di def ah li lii jàmbaar di def man sama objectif loolu la waaw moom laa bëgg moom laay ñaan pour am ko parce que ñooñu ñëpp tey bu ñu taxawee ñun bokk nañ ci ay Dakar Sacré-Cœur ñun ñëpp dañ ci jàpp ba tey mu egg si fii ñun dañu ci jàpp liggéey nañ fa jàppale nañ ci projet bi taxawu nañ leen loolu ADN la ci man dama ko bëgg fu mu ne man dama koy def avec désintéressement li may def yëpp awma ci dara ñeneen ñi sa dana ñun sax bëgguñu dara ñeneen ñi sax dana grand dañuy tardé yàlla moo ko def ci ñun ñun peut-être loolu suñu nattu la dañu war a dimbali ay nit parce que àdduna boo fi nekkee danga war a am surtout nga dëkk ci gox da nga war a am njariñ ñun loolu lañ slogan boobu daal la demee waaw. Ah, appel bi may def daal mooy que daal ñu jàppale école football yëpp ñu nekk Sénégal yëpp xam na ne lépp lu baax foofu lay jógee balaa moo dem yeneen centre yi centre yi ñuy dégg yëpp. ñu naan nañ kii génne nañ kii balaa ñoo dem foofu Ecofoli ñoo leen di former Ecofoli bu ñoom dañuy ñëw ci Ecofoli tànn xale yu gën a baax leen kon donc ñun ñun tamit dara la ñun ñooy fondement ñun vache à ay vache à la ñu def waaw ñun fondement lañu mais duñ ñu gis mais li baax yëpp ñun la balaa dara di am. Euh, madame Diawara comme ni ma ko waxee rek dinaa ko gërëm lool lool euh, ci canal Boubacar ba euh, Boubacar Diallo ak Mansour Ayanda aussi. moom tamit ku baax la waaw jàpp na ci jàpp na ci bu baax daal jàpp na ci bu baax moom tamit moom tamit sama nit la jàpp na ci bu baax te rejoindre nañu ci formation de la petite catégorie mu ngi ci mu ngi ciy jàpp bu baax donc yooyu yëpp daal maa ba pare nag yi nga xam ne moo ñuy moo ñuy defal moo ñu dimbali ci bés bi muy Fatoumata euh, euh, madame Fall ah Fatou Fatou Diop moom tamit suñu rakk la jàppale nañu bu baax moo jàpp ci journée bi bu baax a baax a baax mu tam ñu koy ñaanal yàlla suturaal ko defal ko xéwal yu bëree bari waaw man daal ñoom ñaar moog madame Diawara daal xam naa Medina daal jigéen ñi daal ñoo gën a ñoo gën a ñoom daal macha allah waaw yàlla na leen yàlla fal cat dafa ñu ñun ñëpp waaw def ci àdduna bi yëpp jàmm. maa ngi tudd Fatoumata Diop Lo euh, dëkk euh, fii ci Medina yaroo yu juddoo Medina yaroo Medina euh, yor benn société structure bu ñuy wax AFSI international di structure bu jëm ci wàllum immobilier. Donc tout ce qui est transactions immobilières, gestion locative, syndic. Euh, voilà, ñu ciy yëngu depuis maintenant plus de six ans euh, voilà ma teew fii aujourd'hui si 35e anniversaire euh, école du football Ousseynou Diop li nga xamante ne euh, mën naa ne bi ñu nekkee xale Médina ba tey école boo xam ne bu ñu xam la bu ñu miin la suñu frères yi jaar fa suñu mag yi jaar fa euh, suñu ndijaay yi jaar fa donc voilà moo tax tey ñu am contentement ñëw euh, teewe si journée bi. waa dama si am plaisir bu baax parce que déjà dafa nekk loo xam ne ci xale yi la jëm te ku nekk xam na importance su sport ci développement xale ku ne xam na euh, ni euh, xale aussi tamit dafa am vraiment importance ci société donc ñun dañoo am vraiment mbégte tey accompagner journée bi à travers notre structure AFSCA International pour permetre à ces enfants des écoles de foot d'avoir cette journée Euh, voilà qu'il soit une journée conviviale pour ñoom ñu mën ci def sport mën ci am ay ay récompenses donc voilà c'est vraiment mbégte la si ñun. waaw tout à fait parce que dafa am importance lu ñuy wax ci société yi li ñuy wax RSE donc euh, responsabilité sociétale et environnementale dafa am importance ci société maanaam ngay dugg ci ay action yoo xamante ne au-delà de l'aspect commercial ou day nekk action yoo xam ne day am impact. ci sa société day am impact ci euh, ci ci ci environnement bi nga nekk donc ñun aujourd'hui à travers cette action la qui vise les écoles de foot de la Médina ñoo ngi ciy jéem mais aussi dafa am solo ci man parce que Médina laa juddoo fa laa yaroo wax naa ko sànq donc dafa am solo ñuy def tamit ay action yu am impact ci commune bi ñu juddoo loo xamante ne ñi dëkk ci commune bi dinañ ci gis seen bopp te j'espère incha allah qu'on aura l'occasion def yeneen yu mel ni nii yu jëmul juste ci bi mën na jëm ci culture bi mën na jëm ci éducation bi mën na jëm aussi ci euh, mën na jëm aussi ci jigéen ñi parce que loolu tamit dama di jigéen loolu tam muy am lu am importance ki man donc effectivement oui ci dans le cadre de ces activités la RSE mën nañ dugg ci yeneen domaines yu dul sport bi mais toujours rek na doon domaine yoo xam ne day am impact ci société bi ñu nekk waaw message bi may lancé déjà dama koy jublee si euh, déjà damay remercier aussi tam di encourager toute les l'équipe euh, euh, autour des, des des des écoles de foot parce que xam naa ni liggéey bu metti la liggéey bu jafe la encadrer ay xale nekk ci ñoom ba vraiment sport bi nekk seen seen euh, intérêt majeur je pense que loolu lu am solo la mais surtout impact bi ñuy wax mooy ba ni ñuy fexe ba ku nekk ñun ñëpp ay doomu réew mi lañu ku nekk ci li ngay yëngu nga fexe am ci benn impact impact bi mooy tey jii que ce soit nga nekk euh, ci njaay wala nga nekk ci liggéey quelque soit liggéey bu mu mënta doon na nga fexe ba mu doon loo xamante ne dina jariñ sa askan loolu loolu rek mooy impact bi te loolu ñun tam ñoo ngi ciy góorlu waaw AFSI International en fait euh, agence immobilière la boo xamante ni day yëngatu ci lépp li nga xamante ni moo jëm ci jaay suuf euh, dañuy jaay ay terrain euh, def gestion locative def syndic de copropriété loolu yëpp suñuy suñu métier la dañuy defaale tamit construction loolu mooy këru métier AFSI International dañuy organiser tamit ay salon salon de l'immobilier salon international yoo xamante ni en général ci dëkku yenn dëkku Europe yi lañ koy amalee euh, di permettre yenn promoteurs yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal ñu mën a dem rencontrer ay clients rencontrer de nouveaux marchés à l'international pour assister yoo ko xale yi xam-xam bon euh, mënuma fay sama entraîneur quoi mais pour gën a ñëw assister quoi euh, encourager booy yi xamal leen ni football yombul quoi bon jaar-jaar dina metti quoi mais da ngay muñ rek bugg leen wan yoon bi wax nañu fu ñu jaar at bon ñu gën a góorgóorlu rek quoi waaw moo waral teew bon message bi lancé mooy d' abord football dafa foog nga discipliné d' abord euh, di déglu sa entraîneur am conseil parce que ki la jàngal mënoo ko fay parce que tey kii bàyyi tam bi di la jàngal kooku pour nga pour nga foog nga foog nga tarbiyu ko te école football bi bu ndaw boo xoolee international bi bëri jaar nañ ay Souleymane Camara jaar nañ fi Tafa Diallo jaar nañ fi Malick Fall jaar na fi bon école foot bu ndaw quoi yaa ngi dégg kon nag école bi xëy na xëy na mun naa ne soutien la soutien la xaw manqué rek mooy te incha allah gars yi dañ ci gën a jàpp pour que pour équipe bi école gën a am doole quoi foog gars yi ñëw ñëw anciens joueurs yeeg ñi ñàkkoo ci équipe bi am am tuuti euh, source ñëw jàpp ci jàpp ci école foot bi mais c'est normal loolu mooy yoon parce que football boo ci nekkee boo ci nekkee ah ba ba kiiwatoo ci mais da war a ñëw jëloon njukkal parce que ñun ancien international ñoo war a mën a jàppale école football Aliou Diop xam ni école Aliou Diop bu ndaw parce que boo xoolee ci club championnat yi ci club équipe nationale parmi le pros am na am na gars yu jaar ci école football kon ñun ñoo war a mën ñëw jàppale Aliou Diop si lu bëri bëri bëri bëri ak Dame Diop ñëpp école football bi école bu ndaw parce que boo xoolee école football fournir na ay jours ci école football même entraîneur jaraaf Youssou Dabo jaar na jaar na fii ay ay ñeneen ak ñeneen jaar nañ fii ay ay ay Badara Kebe ay yeneen pour yoo xamante ne boo mënu ma citer boo boo limee ngay juum kon nag du du école bu ndaw certes soutien lay manqué parce que oto boo ci deful essence du te bon gëm naa ne ñun anciens joueurs bu ñu ci jàppee rek jàppe jàpp rek mun na mun na jur dara quoi. waaw man maa ngi tudd Madiagne Fall dëkk école Médine waaw parce que membre laa si école football Ousseynou Diop bi ndax ñoom depuis bu nga ko formé 1987 ba léegi mi ma fekk école Médine. man depuis 1975 ba léegi maa ngi école Médine léegi ñoom ñu forme ko en euh, yore am ay encadreur bari na si ay anciens joueurs yu si jaar ay international yu fi jaar ba jusqu'à jour bi su nee bay def anniversaire 35 ans loolu mbégte la lu rëy la si école football yi parce que mën nañu ñooy ñooy bàyyi si école football yu Médina yeeg Fass ku def 35 ans si école football kon kooku duñ lay wax ni jaajëf. di kontaan trop si geste bi Aline def anniversaire bi 35 ans nga invité ay say anciens joueurs ay international ay école de football yëpp ñu yendu yow ba ngoon vraiment duñ si rafetlu quoi bu baax di ko gën a ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla jàppale partenaire bi mu nekkal tey c'est la première fois tam ñuy ñaanal leen seen liggéey continuer am si jàmm am salaam ñu ba déwénee ñu defaat ko si beneen 36e fois bi